asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di njëkke si nuyoo bi euh, Gaston Mbengue le Don euh, di ko félicité nag bu baax a baax a baax di nuyu aussi sunu avocat bi Maître Cissé di nuyu Maodo Malick Thiandoum tey mi nga xam ne mooy présenté euh, face à face bi di nuyu sama rakk sama adversaire Balla Gaye di nuyu ñi fi teew ñëpp Laxaat Abdou Aziz Baye Ndiaye maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu aussi journaliste yi fi teew tey parce que tey euh, ñun ak yéen kenn mënul dem bàyyi moromam dañ leen di soxla da ngeen ñuy soxla kon dañuy liggéey ci équipe ñu leen di félicité bu baax a baax a baax seen liggéey rafet na euh, man nag damay félicité Gaston bu baax a baax parce que euh, actuellement tey. Euh, làmb lii la soxla bés mel nii waaw bés yu la soxla donc yàlla def tey nag si lu gaaw gaaw gaaw gaaw mu décroché combat bi ah wax ak ñaari mbër ñu d'accord mu ñëw tey présenté mbër yi boo wane ni décroché na combat bi kon ñu ngi ko si félicité bu baax. Euh, di ñaan yàlla aussi mbas mi jóge fii nu mu gën a gaawee ba activité yëpp delluwaat ni mu meloon. li ma si wax nag man na bari man na bañ a bëri euh, kii tey ma war a bëree laat muy Balla Gaye xamante nañu bëre woon nañu euh, yàlla may man dam si kawam euh, tey mbër mu ragal rek mooy ragal may revanche man loolu ragaluma loolu man ku ma daan nag koo xam maa la daan yàgg naa ko wax soo bëggee ma may la revanche mbër nag am na ñoo xam ne bu ñu la xasee daan pare nañ ci dañuy tourner page ak def affaire mais man loolu nekkuma ci. Euh, actuellement nag bés yi la làmb soxla bés yi toll nii te kii sunu combat mënul naqari parce que ñaari jàmbaar lañu yoo xamante ni kenn wanewul ñàkk jom ci làmb waaw donc làmb la comme tey dañuy ñëw pour présenter wu dese nañ yeneen jàkkaarloo yeneen face à face mais na xam ne nag am na combat parce que gis naa ko fan yi mu def benn sortie ne gars yi dañ ko ragal mais comme man bokk ma si ñu ko ragal rek alhamdulilah. mais revanche la jamono jëm ko doon daan Balla Gaye moomee ak Balla Gaye nii gisoo ci différence am. waaw moo tax ma ni la euh, euh, tey ba ñu dajee la ca xew yëpp nit ñi gis nañ ko ah comme nee dafa feebaroon si li ma dégg waa bii moom na wér péng rek ñu soog a jëflante. <laughs> loolu de neex na pare. Balla ayca <laughs> àdduna lay déglu revanche la bu nga xam ne wax dëgg yàlla euh, bëggoon nga ko yow tamit parce que bëri na combat yu fi jaar mais combat bi yaakaar naan ci yi la gën a soxal ci sa carrière la bokk parce que ba ngeen di dajee en 2014 ak léegi juróom-benni at la ñu bari ni Balla mi daje woon ak Bombardier nekkul woon à cent pour cent mais depuis le retour de Balla nit ñi gis ni Balla Gaye ma ñu xamoon démb ak bërki démb moom la ñu gisaat muy le lion de Guédiawaye l'enfant de Malifara war a daje ak ki nga xam ne nag guddi guddi mbuur la wax de daan ñibbi mbuur rek moo ko soxal combat la bu nga xam ne daal en tout cas bëgg nga ko bëgg na ko jubo bi yomb na Gaston taxawal na ko looy wax ak àdduna ma doon ah, <laughs> ah, jërëjëf Malick maa ngi lay maa ngi lay ziar bu baax di nuyu ñu fi teew ñëpp euh, di baal ñëpp àq di baal ñëpp mu taxaw ñaanal mu yàgg fi loolu te ak njabootu maam Cheikh euh, ñu dem màggali ci jàmm ñëw ci jàmm chauffeur daw ndànk dal ndànk. Euh, ci barki Cheikh di nuyu si tamit suñu papa Gaston yi nga xamante ne vraiment moo tëgg làmb ji ak suñu papa maître avocat Cissé maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Bombardier suma adversaire di nuyu aussi tamit euh, suma mag Baye Ndiaye suma xarit Aziz Ale Ndiaye suma père di gërëm Sénégalais yëpp nag aussi mooy kon li nga wax rek euh, kon dafa am combat bi fi taxawoon. yàlla suñu borom dogal ne bii mooy taxaw parce que lii moo war a am day am di xamal ne per def nga lu neex def nga li ma yàqamti woon def nga li Bombardier yàqamti woon parce que tey mënuma bëri ba pare Bombardier def nu ne ci làmb daan ma amel ma revanche may ma ko dama koy féliciter ci loolu yi nga xamante ne def na ko lu rafet ndax tey boo seetee làmb ji moo ngi bëgg a yàqu ndax mbër bëri dañuy bërëg ay mbër benn yoon ñaari yoon taxaw ne duñu bërëg moom te teguñu ko ci benn sart boo xamante ne loolu bokkul ci sport sport lu koy defar tey Bombardier mu ngi jiitu làmb foofu tey xool lu mu def carrière mu ngi nii day rafet du ñaaw mais da ngay gis koo xam ne daan na benn ñaar ñetti rek non dootuma bërëg yow mais da nga ko wax wax bu bu doy waar wala ci cadre sport cadre sport la yem na mbër yi mag yi bàyyi xel bu baax ci lu ñuy def ñëw di bërëg seeni moroom daanaka nit que mille fois mais làmb saa yi leen boole da ngeen war a bëri. kon Bombardier vraiment maa ngi lay fii féliciter si loolu di la encourager waat encore wane nga ne toujours rek luy jëmale làmb ci kanam ngay doxee. kon donc vraiment yow it na nga xam ne am nga combat ndax danga maa jox loo xamante ne vraiment lu ma bëggoon la te Sénégal yëpp ñoo ngi koy xaar te vraiment ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu si jàmm ñu am ci ndam ci jàmm. féetee ko waat ñi nga xamanteni non la amateur yi bëgg mom la supporter yi bëgg di gërëm sama supporter bu baax di gërëm sama système sama am bi jam sama waji ma ngi koy nuyu euh ma ngi lay xaar bu baax baax di bëgg bëggewaat ñëpp nak ah jërëjëf. nee na booba da nga ni da nga feebaroon mais nee bi nga wër peng da nga wax ñëpp ni wër nga peng waaw man kuma gis xam mom sax xam wër na <laughs> mom sax xam wër na té donc li ci am solo moy ni ma waxon rek nit boy bëri mu da ñaanal jam ak salam ba ngeen mëna a jëflante jëflante bu neex en tout cas na Sénégalais yi bàyyi xel ne combat muunta dakk bi combat muunta rëy bi loolu moom mang gawe koy dénk ñëpp ñu xamé ko non ñaan yalla aussi tamit mbass mi jóge fi ñu ñëw nu mu gëna gaawé ñu bëré ko dem seetuwaat lenen, waaw loolu la laa man loolu na mbass mi jóge fi dal ñu Bombardier dan ko baat mbour kon guddi guddi mbour la après inshallah allah ñu ci dolli rek moy xam nga. Euh, Sénégal la ñu nekk te ku si nekk da nga am famille da nga am staff euh, bu ñu gisee rek brusquement nii mu am tey ku nekk mën na ni man de yëgaluma ko man de waxuma mais yàlla xam na ni Gaston bi ñu si waxee ak léegi même pas trois heures de temps donc wane ni bëgg-bëgg la kii bëgg na bëreeg man man bëgg naa bëreeg moom Gaston bëgg na tëgg. donc tey am na ñoom bu ñu ko gisee rek ñu ne lu tax ba ngay dem waxoo moo lu tax nangam lu tax nangam pour ñu comprendre ko noonu que ni affaire bi taf-taf lañ ko def donc beneen bi mooy. voilà benn bi mooy aussi dama bëgg sponsor yi ñu ñëw seet si Gaston paa ñuy xaar Gaston ñëw parce que tey dafa nekk élément boo xam si Sénégal xam nga euh, mu ngi mu ngi bay waaram kon sponsor yi nañu ñëw jàppale ko ñu ñaanal ko tey lii mu sumb yàlla di may ko si réussite totale. waaw nako ñepp ñaanal Gaston ñu ngi lay ñaanal bu baaxa baaxa baax yalla may la katan katanal la ba nga am si réussite total wa jeureuf malik kon ni nga ko rek kon ni ko kon ñu nay Sénégalais lañu kon ni ko Bombardier waxee rek ben instant combat bi def taxaway bi yagul vite fait la nako ñepp xamé nonu comme man sama papa da bari lu mukheisu kaas <laughs> mu xey suba rek <laughs> ne ma dem nga jël affaire bi te waxoo ko nii la demee kon Aziz la dénk lépp rek pour leeral ko rek ne nii la demee waaye bu ma jotee ci avance aussi tamit euh, tey jii dinaa yëkkati cinq cent mille jox ko suma mag suma papa Aziz mu dem jox ko per Mbaye Guèye mu yokk mu yokk ci li nga xamante ne wax dëgg yàlla ci lay fajo euh, yaramam wér-gu-yaramam loolu daal xam naa ko ci maa ngi koy wax loolu pour jàllale ko ñëpp xam loolu jërëjëf

bu kenn xey nak dem kër bala Gaye nan ko avance bi nga jot jox ma ci sama wal wala ngay dem ci Bombardier nan ko avance bi nga jot jox ma ci sama wal boobaa mu dog njëg rek fimna dara gennagul <laughs> alors gis ngeen nonu maître joxna le B52 de Mbour pour mu apposer signature am ndax ku nek xamna ni mbiri tubab mom bo xësee ba signé dugg nga. Bombardier si na ñaar ñetti signature des na benen contrat li rek moy firndel ni amul benn sikki Bombardier jël na engagement à travers sa signature pour pour le compte de Gaston Production ak ki nga xamni sous l'œil vigilant de l'avocat maître Sissé. contrat bi lié d'un ko koy jox mu ah, maître da koy jox waaw mu signé signé wat. ñu ko benen page mu signé signé wat loolu moy man Balla gay djubona ak Gaston Beng, pour bëre ak Bombardier Gaston également va apposer sa signature ginaaw bi mbeuri defé sen engagement pour wax ni dinañu bëre amna ci parti contrat bi lu nga xamné concerné Gaston mom Lolo daf koy signé wax ni man li la digalé ak mbeuri ci nii laa koy respecté lii laa war a def mbër yi tamit ni signe nañu diggante nañu ak Gaston combat euh, li nga xam ni ci lañu ñu d'accord lii la signe na ñu signé ci kanamu caméra yi yàgg ngaa signe gas combat bi taxaw na leneen li ci des nag dinañ ko topp ak Gaston pour dérouler le programme de promotion de ce combat mbuur géejawaay voilà lax mbuur géejawaay boobu dey jox nañ ma ko ci ruq bi